mbégte la ñuy àndal saay suñuy wax suñuy kàddu di ko jëmale ci président Ousmane Sonko waaye rawatina suñu président bu wees bi nga xamante ne mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy président boo xamante ne am nañu kóoluteeg yaakaar li ñu bëgg wala sax li askan bi bëgg nga xam ne ñoo ko fal la ñu bëgg dana ko def te ci loolu la doon dox coono gu metti yoon bu yàgg bu gudd lool ba kenn ku ci nekk jàppoon ne du jeex mukk waaye lu dul jeex amut sunu boroom ba nga xamante ne mooy def di dindi def na Bassirou Diomaye fay di président du Sénégal waaye Ousmane Sonko gàcce ngalaama li tax ñu koy wax gàcce gàcce ngalaama daf fee fal ay maire fal fi ay député fal fi ay lu ne waaye fal fi président du Sénégal nga xam ne jaanam wàcc na Sénégal lañu bëggoon ci jamono ji am nañ ko waaye lan moo des mooy ñu jàppalante suñu biir fexe jàppale gouvernement bu bees bi nga xamante ne ay ndaw ñu bëgg seen réew lañ ñoo xam ne dañoo sacrifié woon ngir rekk Sénégal jëm kanam li ñu daj li ñu leen tëj li leen rey li leen faagaagal ñu demoon ba ci réew mi tuuti ci loolu te ëppoon fi doole loolu ñëpp seetaan leen tey ji ñëpp ngi leen di kañ waaye loolu lépp sax taxuñu jóg la ñu war a taxal jóg mooy sénégalais yi xam ne gouvernement bii dafa doon gouvernement bu yees boo xam ne la ko tax a jóg mooy fexe benn jubóole askan bi ak askan bi fexe ba justice bi jaar yoon waaye justice bi juboo ak askan bi ba képp koo xam da ngay jóg ngir dem ci justice doo tiit doo raf ñu jëlee fi guerre ak corruption waaye nag du ñu venger wu comme ni ko Ousmane ko waxee waaye ñu indi rétablir justice ñu yàq réew mi ñu dem ca yoon yoon àtte li yoon wax rek loolu la ñuy exécuter Sénégal war naa dem ba nga xamante ne caas ci élection waratu fi amati électeur bu nekk am nga droit wala citoyen bu nekk am nga droit choisir ku la neex à 18 ans comme ni ko Ousmane ko waxee mu neex la mu naqari la dañ lay dugal directement ci fichier électoral bi soo demee ba war a voter yow yaay xool ku la neex nga voter bu la neexee nga bañ a voter mais lii am lii dëgg te yoon mooy citoyen citoyen bu nekk dafa war a voter beneen bi ci des mooy euh, Sénégal ci boppam ci réew yi nga xamante ne jege nañ ko ñu fexee jàmm ji am law ba faw suñ digganteeg Mali Burkina gine Gambie lépp jàmm am ñu am ay relation yoo xam ne gagnant gañaa la du doon ay relation yoo xamante ne euh, dañuy mel ne comme Sénégal ñoruñu comme li nga xamante ne Macky Sall gis nañ dafa mel ne sous région bi bàyyiwu leen xel sax moom toujours France France France moo tax ci discours bi nga xamante ne président Bassirou Diomaye fay yëkkati na ko mooy dafay woo réew yëpp képp koo xam ne bëgg nga liggéeyal Sénégal ma nga lay tàllal loxo ndax Sénégal loolu rek moom la mën a am. su ko defee nag li ca des mooy sénégalais yi ci boppam ñu bañ a yàkkamti bañ a exigeant bañ a doon ñoo xamante ne dañuy bëgg teg kut ko kut rek dans une semaine un mois rek lépp jaaraat yoon déedéet jàpp leen ne ay paxu kaña lañ fi fekk ay kaña ñoo fi nekkoon ñoom la ñu wutu kon nag pax yooyu yëpp dañ koy jéem a fàtt jéem a téye loxo ña doon sàcc ña doon dóore ñu téye seen loxo fexe defaraat Sénégal boo xam ne Sénégal réewum teraanga lay doon ba képp ku jógati di ñëw Sénégal sa fit day ñaata nit ñoo nekkoon exilé ngir gouvernement bu bon bi ñaata nit la ñu rey ci li nga xamante ne teg na teguñu ko fenn loolee lépp nag li ñuy war a lijjanti la ak tamit diabolisation bu ñuy wax diw gëmul lii diw lii la gëm Sénégal du dëkk boo xamante ne ci yooyu war nañ ko werante